ne ñiy jaay xar ak nag ki bëy seen seen góor ga ne ak seen góor ga dafa bëggoon ma liggéey comme ñëpp di jaay xar man dafa bëggoon ma liggéey comme ñëpp di jaay xar nag eh, mu may ma lu ma jëndee xar moom maam Abdou may ko lu mu jëndee xar fekk booba lu ci bari maa ko daan wuti maag Ceerno ka fekk nag lu ci bari moo ko doon wuti maag Ceerno ka ndeysaan ak Ablaye géey Walda ak Ablaye géey Walda ku baax ku baax fu nekk lañ daan dem fu ne lañ daan dem bu tabaski jotee nee bu tabaski jotee wala bu gàmm jotee mbaa bu gàmmu jotee ba benn bis rek ba benn bis rek mu woolu ma ca jak saaw mu woolu ma ca jak saaw ñu toog di waxtaan ba yàgg ñu toog di waxtaan ba yàgg mu ne ma sëñ Babacar mu ne ma sëñ Babacar man de defoon naa di nga xalaat ndeke yow amoo xalaat ma ne defoon naa di nga xalaat ndeke yow amuloo xalaat ma ne papa ci lan ma ne ko papa ci lan mu ne at mu nekk mu ne at mu nekk yaag Thierno yaag Thierno Ka ak Ablaye Gueye yéenay ànd di ma jëndali ak Ablaye Gueye yéenay ànd di ma jëndali tabaski tabaski wala nag wala nag nagu gàmm nagu gàmm bu fekkoon ni am nga yitte bu fekkoon ni am nga yitte da ngaa waroon di wut waroon di di yar di yar bu ma amee bu ma amee nga jaay ma nga jaay ma bu ma amul bu nga lebal ma nga lebal ma ma ne papa danaa ko def ne ko papa danaa ko def mu ne ma ñaata at a ngi nga di ko def mu ne ma ñaata at a ngi nii nga di ko def kon retard boobu noo koy daboo. kon retard boobu noo koy daboo. daal di génn benn som. daal di génn nag benn som. ni ma demal nga jëndi xar. ni ma demal nga jëndi xar. Eh, ma jënd xar. ne mu jënd xar. kees gii laa ko jëndee. kees gii la ko jëndee. jënd xar bu góor bu jigéen. jënd xar bu góor ak bu jigéen. yóbbu sama kër. yóbbu sama kër. ndeke ñëw na. ndeke ñëw na. Eh, ma jaar ci moom. ma jaar nag ci moom. mu ne ma jënd nga xar yi. mu ma jënd nga xar yi. mu ne ko waaw mu ma anañu. mu ma ne ko mu kër gi mu ne ma déet. ma ko ma kër gi mu nga indi ko. demal nga indi ko. ma indi yi. nee mu indi xar yi. mu ma tegal te nga ñëw ñu waxtaan. ma tegal nee xar yi te nga ñu waxtaan. ñuy waxtaan. ñuy waxtaan. maa ngi wan gannaaw xar yi. moom mi ngi wan gannaaw xar yi. moom mi ngi janoo xar yi. moom mi ngi janoo ak xar yi. man mii man wan gannaaw xar yi. moom moo wan gannaaw xar yi. ndeke yaa ngi sàq mi. ndeke yi ñi ngi sàq mi. mu toog ba yàgg. mu toog ba yàgg. mu ni sëñ man dama jaaxle si. mu ni sëñ man damaa jaaxle ma ne lu la jaaxal man papa lu la jaaxal. mu ne ma gisuma fi boolu ngooñ gisuma fi saako. mu ma gisuma fi boolu ngooñ gisuma fi saako. te xar yaa ngi sàq mi te xar yaa ngi sàq mi rek. ma ne ko papa xar. ma ne ko papp xar. bu lekkee ba toog ci taatu garab. bu lekkee ba toog ci taatu garab. lu mu wan lu mu lekkoon. lu mu lekkoon. koy duññi daf koy duññi dana ko jaarale waat ci gémmiñam dana ko jaarale waat ci gémmiñam mu ci war a wan lu mu ci war a wan dana ko wan dana ko wan lu mu ci warta lu mu ci warta wan mu yàbbi ko mu yàbbi ko ne ma ndax xar am na responsabilité bay xame lu mu war a wan nag lu mu warta wan mu ni ko moom am na responsabilité ba war a xam lu mu war a wan ak lu mu war a yàbbi <laughs> man ngalla yow mi nga xam ne loo jot ale waaye ngala yow mi nga xam ni loo jot rek ale ale te munoo def ni xar te moo def retour xanaa moo def ni xar Ah. ñu dem nag léegi. nee ñu dem nag léegi nag. ba ni kenn du ko liggéey. ba ni kenn du ko liggéey. jullit yi rek lañu bëgg a yàq. jullit yëg lañu bëgg a yàq. moo tax ku ci mën a liggéey rek liggéey. moo tax ku ci mën a liggéey bokki. xar yooya liggéey nee na xar yooya. ba ma ko yoree ay at. yor na ko ay at. góor gi ni ma kaay wutali ma xar góor gi ni ma kaay wutali ma xar ma ne ko papa dama lay may am naa xar ma ne ko papa dama lay may am naa xar mu ni ma déet munu ma déet waxuñu woon loolu waxuñu woon lool de bu amee bu amee danga may jaay danga may jaay bu ma amee bu ma amee jënd jënd bu mu amul nga lebal ma nga lebal ma loolu la ñu waxoon loolu la ñu waxoon mag ñi ni ko bàyyil mu def ko hadiya mag ñi ni ko bàyyil mu def ko hadiya mu ne kon war sama borom mu ne kon nag moom loolu ma war sama borom ndax waxuma woon nag moom loolu ma ne jaay ma bu mënul mu am wutali su ma nee daal na ma jaay su ko mënul xaalis baa ngi nii mu wutali ma ma ne ko dama koy jaay ma ne ko nag dama koy jaay di bëre di jëli xar mi ne mu jug dem di jëli xar ma di ko déet mu ne ma déet mun ma déet li nga koy jaayee yàlla xam na ko li nga koy jaayee yàlla xam na ko li nga koy jaayee keneen ku dul abdu li nga koy jaayee keneen ku dul abdu njëg googe laa bëgg nga jaayee njëg googee laa bëgg nga jaay ma ko ma ne ko trois cent mille ma ne ko trois cent mille laa koy jaayee mu génn xaar mi mu génn xaalis mu génn xaalis bi daal di wàññi jox ma daal di wàññi jox ma xanaa am naa droit ci ñu jox ma sama xar. ni ma léegi nag xanaa am naa droit ci jox ma sama xar. ma ne pap moom lay indi. ma ne ko pap moom laay indi. mag ñi laata may dem. nee mag ñi laata ma laata moom muy mujj dem. ñu ne sëriñ bi tenk ko nangul rek. ñu ni sëriñ bi tenk ko nangul rek. mu ne la ma jaayante woon ak moom yàlla rek ko ko fekkee. mu ne la may jaayante woon ak moom. yàlla rek moo ko fekkee. wala loolu rek lay mën a am. loolu rek lay mën a am. su ko mënul rek. su ko mënul rek. ba tey. ba tey li ma ko jox. li ma ko jox mu dee wutali ma ci. mu dee wutali ma ci rek. mu ñëw ne mu ñëw indi xar mi xar mi indi ko jëli xar mi indi ko ma sa yaay moo amul ndawal mun ma sa moo amul ndawal seetal li moo tax euh, il faut que ñu liggéey moo tax il faut que ñu liggéey fokk ñu liggéey fokk ñu liggéey bëggatuñu nag ngeen liggéey bëggatuñu nag ngeen liggéey cause ba it mën naa ko wax ne cause ba taxit ñu lànk bañ ngeen liggéey moom mi mën na ko wax mooy ñu fexe ba dootu leen lekk lu lew mooy ñu fexe ba dootoo leen lekk nag lu lew nag loolu mooy pexe Europe yëpp. loolu mooy pexe Europe yëpp. fexe ba jullit yi ñàkk dëgg-dëgg. fexe ba jullit yi ñàkk dëgg-dëgg. te luñ leen di jaay du lew. te luñ leen di jaay nag du lew. loo bëgg nga ni bañu ma dara. loo bëgg nga ni bañ ma dara lu ma am te ku dul lekk lu lew. ku dul lekk lu lew nag. koo xam ne ki makaluhu xaram. loo xam ne moom loo lekk dafa xaram. mashrabuhu xaram. loo naan dafa xaram. malbasuhu xaram. loo sol dafa xaram. anna yustajaabu naka ngay mën a ñaane yàlla suñu borom nangu nag su ko defee nag. ne su ko defee nag. waxtaan ñu ngi koy tëj. waxtaan.